Nous bi pour présenter ba lancer suñuy activité vacances citoyennes yu mouvement je participe mu amoon ay points mais nous comme nit matul et xel mën na fay wala li nga xalaata du bu présenter ci ak ni suñuy sœur am expérience ci association am expérience

parce que xëy na ñun ñoom bu ñu toogee euh, loolu lépp lorange boobu du ci am ñu leen di wax ni dëkk bi am na espoir bu fi des nañu continuer toog gëm seen bopp gëm initiative gëm ni lu lay ñoŋal lu lay jëmale ci kanam ci yow lay tàmbalee du jóge ci ñeneen donc bu ñu gëmee loolu rek ba pare dellu ci diine dellu ci foi foog naa ni mën nañu am fii ci dëkk bi loo xamante bi dinañ ci jàpp mun ci suturloo sans les juger nag sans juger juger wuñu kenn que lii fort ci nit ba tax mu jóg def ko mais nañ xam ni loo xam ne da koy def mën ci jële gaañ ba nga xam ne bu ñu demee sax mën nañ ko jàppee xaru xëy na gënul pour ñu pour ñoom ñu koy def